loi bi ñu utiliser woon ba barricade Ousmane Sonko këram cette même loi boobu moo tere woon waa diaspora ñu bisi mooy list aéroport bi ak liste màggal bi ñu doon wax parce que loi loi yooyu benn la woon léegi loi boobu nag moo continuer moo continuer ba léegi ñëw ba tere ay ancien président ay ay ancien président dugg ci Sénégal ay ancien ministre génn Sénégal ay ancien DG génn Sénégal cette même loi la loi boobu ba léegi changé moo fi nekk ba léegi ndax ñun voté guñ fi benn loi amul cesse de midi ak 14 heures depuis da APR yi réponse maa ngi noonu loi bi barricadé woon Sonko loi bi ma tere woon man ma ñibbisi ak yeneen sénégalais yu bari liste aéroport ba loi boobu moo continué ba léegi tere président Macky Sall ñëwaat Sénégal te tamit ministre yi dem voyage ak DG yi c'est pas compliqué même loi bi la ñun ba lay voter guñ ci loi ba léegi jomaay voté gu fi benn loi. salaamaaleykum gars yi gars yi man dama gént benn gént quoi dama gént wo sama benn copain buy liggéeyee aéroport ci police frontière man ne ko mais booy waa APR ñi xataraayu ndax nee euh ndaa am loi bo xamanteni mo tax ñu tek liste ci aéroport bi ba ñom seen nit ku fa ñëw. ñu ne la do do do gën deug mu ne boy booy sa tiaxani mu ne boy booy bi mu ñëwee ba léegi amul ben loi bu mu fi votalu mu ne ma seulement que ni jurisprudence cité keur góor gi bi barricade woon Sonko moo ku nek jurisprudence Maroc jurisprudence bob mo continuer barricade Macky feulé ci Maroc seulement que ni dañu effacer turu Sonko def ci turu Macky effacé kër góor gi daf ci Maroc dama big lañ gom lañ ko bindee woon rek bindee wuñ ko woon sax big waaw moo tax dañuy gome rek remplacé ma ko mais boy dem yaa ngi dégg député yi naan waa APR yi ancien ministre yi ku ñëw ba aéroport ñu téye la mu boy yow yow xanaa da nga dof man ko ah ma yow gis nga loi bi nga xamante ni yow moo la tere woon ñëw moo la tere woon ñëw Sénégal tere ñëw ay ñoom Tunkara tere ñëw ay ñoom Fallou ñang ak ñeneen ak ñeneen moo moo moo continuer ba léegi seulement que ni nee na man dañoo effacer sama tur def ci turu remplacer ko par turu Seydou Sow nee noonu rek la demee effacer turu Fallou Niang moom frère mi ngi Sénégal di céetal yàlla na sëy bi barke remplacer ko par turu Mamadou Mamadou Gueye nee na noonu la demee dañuy dañuy dañuy dañuy gome rek bind beneen bind bind bind beneen tur nee na dañoo gome turu eh, ki nga xamante ni mooy euh, euh, notre frère euh, Dooba Kimit Gomé rek lañ def turam remplacé ko par turu Lat Diop nee amul am leneen changé wu fi même loi bi la ma ne ko mais boy mais gars yi ñu ngi kaas ba léegi ne ñoom seen nit yi sax xam nga dañoo exigé exilé wu am na ñu daw génn exilé wu mu ne ma xoolal gis nga booy dara changé wu fi gis nga jurisprudence exil bi fi woon bi génnewoon ñoom Ousmane Diagne ak ñoom Ngagne Demba Touré ba léegi boobu moo fi ne nee na seulement que dañoo gome turu Ousmane Diagne remplacé ko par turu Mame Mbaye Niang loolu rek la gome turu ki nga xamante ni moo nekkoon Ngagne Demba Touré remplacé ko ak ki nga xam ne mooy turu Antoine Diome mi ñu naan daw naag ak ñeneen ak ñoom Yanko ak ñoom Yanko ba jar amul leneen lu fi changé noonu rek la demee dañuy gome remplacé jërë ngeen jëf kon gént googu daal moom laa gént dëgg démb te dama bëgg na gars yi firil ma gént gi ndax am dëgg la wala du dëgg man li may gént nag en général dëgg lay doon quoi